daanaka fan yii yëpp nit ñaa ngi koy dégg ki nga xamante moom mooy actrice ñun ñu gën koo ràññee fi la nga xamante ne mooy série infidèle Kumba bu ndaw daanaka jamono ji ji yëpp ah, ñu ngi dégg ay rumeur ni dafa def divorce ah, ba tax na nag dinañ jot kenn koo xamante ne jege na ah, xale bu góor bi mu gën di cee indil ay leeral bu ko defee ñu gën see mën a suux wax ci boobu noonu rumeur bi nga bi nga xamante jamono ji nit ñaa ngi koy laam-laamee Babacar ah daa mel ni waa ji moom moo nekk di woote dañ koy jël nii def ko en direct salaamaaleykum. waaleykum. salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu. di lay dellu ziar baax baax. di la dellu ziar. alhamdulilah. Mm-hmm. waaw maa ngi doon gis euh, li seen émission bi di naaj na euh, lool. moom si li nga xamante ne moom mooy kaawu kii bi kaawu Kumba ndaw boobu noonu. Mm-hmm. voilà pour pour affaire yi ni nga xamante ne noonu demee parce que ñu ñu ngi doon ñu ngi gis li nga xamante ne moom mooy ay ay rumeur ñu dégg ni moom dafa divorcé ak loolu noonu. Mm-hmm. ma bëgg a xamal que ni carrément que moom divorcé wul. divorcé wul sëñ bi. divorcé wul jëkkëram moo ngi tudd Momo Momo Ndiaye. Momo Ndiaye. moo ngi waaw moo ngi fii États-Unis. Mm-hmm. voilà moom si boppam moo ngi demandé li nga xamante ne moom mooy jëkkëram divorce waaye jëkkëram may ko maatam ba tey. parce que moom Kumba bu ndaw ci boppam. moom moo koy demandé divorce. waaw mais jëkkëram may ko baatam. Hmm. waaw parce que ñun dañoo xëy gis ni si euh, yenn si internet yi ñu gis ñu ñu ñu gis ñu dugal. Hmm. que ku moomu ndaw divorcé divorcé ñu bëgg a xamal ni que carrément ko moom divorcé wul. Hmm. voilà moom moom jëkkëram nag moom si boppam amul ak moom benn problème amuñu benn problème dafa xëy xëy rek ne ne ne ne na jëkkëram naka jëkkëram may baatam ak ak yooyu noonu. jotewuñu xulloowuñu xeexuñu. xulloowuñ jotewuñ dara. d'accord. voilà léegi moom si boppam. Mhm. jëkkëram moom nangu koo may baatam parce que jëkkëram sax yu yónnee fii fii fii trois mois ngi nii moo ngi koy yónnee ration mu ngi koy delloo. moom soxna si moo ko koy delloo moom Kumba bu ndaw. moom soxna si boppam Kumba bu ndaw moom moo koy delloo ration moom. d'accord. voilà moom jëkkëram jotewuñ dara parce que jëkkëram bi mu ñëwee Sénégal si ñoom ñaar la ñu xamante. Mhm. bi ñu xamante moom si boppam dafa dellu bi mu delloo la la la la ko takk. Mhm. bi ko takkee jëkkëram moo ñu fii États-Unis moo ngi liggéey yor na ay këyitam day dem ak a ñëw moo ngi liggéey liggéeyu boppam sax la yor. d'accord. voilà en tout cas si pour ñu xamal ni sénégalais yi moom moo ngi koy ñaan baatam. Mhm. mais ci kër si boppam mayagoo ko baatam parce que consommé gul sax li xamante ne moom mooy maanaam bi ko takkee ak léegi. Mhm. mot na sept mois ñoom na sept mois bi mu ñëwee fii lañ génn ñoom ñaar. après mhm. bi mu delloo la ko takk. d'accord. voilà pour ñu xam carrément parce que ñun bu ñu gisee effet sax ñun dañoo xaw a jaaxal carrément que que ñu ne mm, Coumba bu Ndaw dafa divorce moom moo ngi mais moom daal mu ngi moom jamono ji euh, sëñ bi nga baal ma rek euh, mais moom jamono ji euh, parce que dañuy gis ni da koy wax nee na moom tas na nekkatul lu mu ci ci buumu sëy parce que ñu bëri sax ñoom dañoo gëm sa kàddu yooyu noonu nga xamante ne Coumba bu Ndaw da koy dee di yëkkati loolu ñun bu ñu ko gisee ñun dañoo jaaxal tuuti parce que je pense que ni dina nekk loo xamante ni lu kii la en tout cas daal lu lu mu mën a xam ba xam. Mhm. mooy jëkkëram may ko baatam ba tey moo ngi si moo moo ngi si buum sëy. ok voilà. maanaam ba tey buum sëy. Mhm. jëkkëram sax mu fekkee bëgg na mu mu delloo ko mu delloo ko a na ko delloo li nga a ni moom la ko ah, joxoon. ah delloo ko lan alal bi. waaw parce que w ah. que waaw. ah waaye c'est que tamit na sëñ bi tey tey yéen ah yéen miy jege tey ki nga xamante ne ni moom mooy borom këru ki nga xamante ne ni moom mooy kumba bu ndaw mais tey est-ce que tey alal boobu noonu yëpp bëgg leen ko delloo est-ce loolu tamit du xaw a métti. nit nit nit boo xamante ni conseil meegul li nga xamante ne moom mooy mariage am. Mm-hmm. jotawoo leen dara. Mm-hmm. jotawoo leen xuloo woo leen defoo nga xëy xëy rek ne na la may baat pour quelle voilà pour que en tout cas daal lu ma mën da wax daal moom mooy soxna si Coumba Ndaw mhm. moo jëkkëram ba tey looy nekk jëkkëram mayu ko baatam en tout cas loolu laa mën a wax quoi mhm. d'accord merci beaucoup sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bi ma duggee nag gis li ma si internet bi mhm. man mu xaw ma jaaxal moo tax man ma ma ma ma wootee direct pour pour pour pour xamal leen loolu wax nga dëgg ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup aussi maa ngi dama maa ngi defal euh, seen émission bu baax a baax am na solo merci beaucoup c'est gentil jërëjëf am na solo am na solo jërëjëf jërëjëf mm <laughs> bu ko defee Cheikh amee internet dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne ni ah kenn si ku jege ci nga xamante moom mooy ah, Momo Ndiaye di borom këru Kumba bu ndaw dégg ngeen ñoom tamit kàddu yi nga xamante ne ni ah moom la ñu yëkkati ñoom nee nañu Kumba Kumba bu ndaw ba tey mu ngi si buumu sëy bi ah ndax ñoom ah, fasewuñ ko waaye yëkkati na aussi ay kàddu ndax nee na Kumba bu ndaw ñetti weer a ngi nii borom këram ki nga xamante ne ni moom mooy moom Momo Ndiaye saa bu ko yóndee li mooy xamante moom mooy rafetaay maam ah, da ko koy delloo ndax nee na bugg ko nee na jamono ji ah lim bëgg Euh, lenn dong la mooy na ko jox baatam ba tax na daal loolu indi ay rëcc bëjoo jàppal bàyyi ñoom ñaar seen diggante te jëkkër ji moom nee na fele mu nekk muy états uni moom am na fa këyit am na fa lépp nee na euh, nee na dara terewu ko pour muy ñëw du dem ak a dikk waaye tamit yenn saa tamit liggéey dina tax ba nit ki amaana euh, euh, du muñ a ñëw moom na kumba bu ndaw na nee na nag na ko borom këram may baat te borom këram nee na pour mu may ko baat d'après ki nga xamante ne ni xarit la si moo Ndiaye parce que moom moo woote fii nii en direct si Actubuzz TV moom nag nee na na ko na ko delloo alalam ba pare nee na saay bu ko delloo alal gi mu ko may bu bu boobaa dina ko may baat daanaka daal coono daal bëri na torop bu ko defee nag Babacar dañ ko fi ndar keppee rek ba suba incha allah ak yeneen actualité.